maanaam ñi nga xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllum jàmm ak wàllum sécurité bàyyi ko ci adduna bi maanaam ñooy nas ak nocci ci forum international de Dakar bi ngir nag ñu xool nan la ñuy fexe ba Afrique am lu jëm ci wàllum jàmm ak wàllum karange réew mi ko di jeen njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag nee na adduna bi maanaam gis-gis bi nga xam ne moom la ñu am ci wàllum situation politico sécuritaire bu Afrique loolee dañu ko war a sopparñe moom Macky Sall nee na nag mënatuñu di compter ci financement extérieur ngir nag mën a assurer sunu karange moom Macky daan nay wax ne Union africaine waratu da nekk simple invité ci g waaye nag dafa war di siège maanaam nekk fa membre bu dëgër këcce yéen a kaay gi de la témoin ak enquête Macky Sall daat nay ñaawlu bu baax a baax maanaam changement constitutionnel yi nga xam ne moo am ci déndu Afrique daat nay wax tamit ne li nga xam ne mooy système bu Nations Unies dañu ko war a réformer yéen a kaay gi di direct news bàyyi mbir moomee wax ci Ousmane Sonko ak Aminata Touré ñaar ñi nga xam ne nee nañu gisante na ñoom ñaara lan la ñuy waajal direct news mooy wax ba bi nee na Habib Sy moo yombal gisante Ousmane Sonko ak Aminata Touré ñoom ñaar waxtaan nañu maanaam lan lan la ñuy waajal loole la journal bi di direct news xëy di laaj en tout cas lëngoo Aminata Touré ak Ousmane Sonko mën naa jëriñ bu baax a baax Ousmane Sonko ndax dina bëri loo xam ne dina ko xam ci Macky Sall yéen kaay gi nag nee na Mahmoud Saleh bu ngeen jekkee dégg ñu ne Mahmoud Saleh fi bu na maanaam bu mu leen bett jamono ji Mahmoud Saleh mere na lool ki nga xamante ni mooy Macky Sall ci fipp la jëm yéen kaay gii di li ñu xëy fekk fa Moussa Sow bu COSERA daat nay dafa a nekkaat candidat ci élection présidentielle 2024 daat koo xam ne yaa ngi ànd ak te mënoo génn daal di koy nag bay boo nga dema te nag ñi nga xam ne jox nañu leen ay ndombay tànk ñoo ànd ak Macky Sall ba pare la lànk kandaare bañ ko défendre ñooñee ne ko ay traître laña moom Moussa Sow COJER daal nay wax ne kuréel gii di ñoom pare nañoo ngir nag maanaam Macky toogaat ci bopp réewum Sénégal ci élection présidentielle 2024 yéene kaay gi di réew mi ko di ci coalition Yewwi maanaam projet de loi de règlement loolee nag ñoom nee nañu loi bi ci boppam moo leen ko may budget bi la député Yewwi Askan bëgg ñu wax leen budget bi fan la ñu ko dugala loolu la ñoom Birame Souleye Diop di sàkko nee nañu nag ko dañoo bëgg ñu andil ñu ay document jox ko député yi wax leen ne leen lii ak lii fii ak faa la ñu dugal li nga xam ne mooy xaalis bi lu mooy loolee rek mënuñu fee nekk nag naan dañuy voté beneen budget yéen kay gi di alerte xëy duñu xibaar naan ñu député yi tey ji la ñu leen woo bu fukki car marathon budgétaire yéen i gi nag nee na ginnaaw Aminata Touré nga xam ne moo defoon proposition de loi ngir nag njabootuk président gi génne seen loxo ci doxalinu réew mi ñu ne déete waaye coalition wàllu Sénégal ñoom nag nee nañoo bala ñu fii voté daal ay budget wala di ko càmbar ki nga xam ne mooy premier ministre bi nag il faut mu def déclaration politique générale ñu ne déete waaye coalition Yewwi Askan Wi ñoom jamono ji li nga xam ne ne maanaam dañ ko doon defaraat loolee la Mamadou Lamine Diallo sàkk ñu daal ubbi ab enquête parlementaire xam ne mooy projet de loi de finance bu ñu ko dàqee ci assemblée nationale maanaam bu mu leen bett yéene kaay gi di 24 heures xëy naan ñu fédération des syndicats de la santé ñoom nag mer nañu ba maara day tale nee nañu dinañu amal ñetti fan yi gerawa ñu ne déetawaay waa ànd gësama ñoom mbaala jo ci ak syndicat bi amul liggéeykat yi leen leer na ñooñee danañu leen traqué danañu leen jàpp danañu leen yóbbu fa mbaxana doonee benn yéen kaay gi mi ko di cee nee sagara ngay xëñ diggante Gaston Mbengue ak Malick Gakou ndax xam ngeen ne dafa waxoon ne Malick Gakou Macky liggéey la Malick Gakou mer ba maara day taali jokkoo ak avocat ma na ko dama koy porte plainte Gaston Mbengue nee na plainte boobu lay xaara waaye nag askanu Sénégal na leen leer du yàgg yàgg yàgg ma plainte ndax li may wax xam bi bi mu commencé ba léegi Malick na waaye man nga soow maa lànk ba tudd sa naajo bañ koo jëla yéen kaay gii di bés bi nee na Air Sénégal marche arrière lay defa la ko waral nag mooy dañoo suspendre nag ligne Dakar Cotonou ak Douala Libreville journal bi nag nee na Air Sénégal jamono ji ay mbiram war nañu ko xoolaat yéen kaay gii di réew mi ko di cee nee lu jëm ci wàllum dugub ji jamono ji cher na ba mara détale ma ne la dugub cher na de yéen kay gi nag nee na askanu Sénégal mere nañ lool Macky Sall ndax nag li nga xam ne mooy dugub ji maanaam kilo bi jamono ji ma ngi ci sept cent francs jaaykatu laax yi jaaykatu fonde yi jaaykatu cere yi ñoom